takkuloonoo. lan la wax loolu. mais fii dafa dafa war a wàcc. général tey dara war a yomb. zene. ñun dañoo dañoo am droit di dund. xoolal may may raxas karo yi. yow yaay roose. yoon la ñu ñëw bërëb yi. di di si dallu am suñuy gél yu yu mool. waaw yow Idrissa yow xam nga mooy sa problème. yow lu nga teg man loolu laa teg. waaw. mais bon fi ñëwee ba léegi yow da ngaa valoriser sa bopp si man laa bi ngay toog mën nga ne ma toogal ci commande. waaw man maay chef kay te man maa woo gel yi. waaw yow yow tey yow yaa am woo gel yi mais bu suba man mun naa xamante ne ay gel ma woo leen. waaw ngay bàyyi ba woote. Hmm. li ma la wax. Hmm. gel yi bu ñëwee nga apat ngay génn ci biti ba ba ma pare. Eh, gel bu ñëwee nan la nan war a def. ah xamoo ko. dina am lépp. am lépp. <laughs> ay ay ji. appart appartement bi dina wàcc. dara dara du seen. c'est que Idy yow yaa ma war a jàppal comme yow yaa ma gën a miin fii yow yaa war a organiser fii ay sorties ñu ànd ak xale yi di dugg si ndox mi bu ko defee ngeen nuuru waale yooyu noonu. yow eh xam nga yu neex na de. waaw man mooy seetaan télé bari na de. xoolal ñun ñun liggéeykat yi. mooy def association daan daan daan doole. Hmm. di organiser ay ay ay sorties. ay sorties ay piscine piscine piscine piscine piscine party waaw ay ay yooyu yëpp. ñu koy hmm. def. Hmm. te ñun dañoo war a am ay ay gel. waaw moom bëgg naa Sénégal ba mu daj ñu ñoo fi gën a sonn. yow mos nga ba mu fi ñëwee ba léegi mos ngaa gis xale bu jigéen ne kaay général Sarr dañuy laaj laaj. kenn mu mosuma am gel gel bu ko doxaan nga bañ. Ah. man xaw ma lan la. sa bëñ yi la. loolu la sa bëñ yi bëri. ah sa gel sa bëñ bëri du lan moom. bañ bañu bañu ay tax soo leen soo leen di fóonante problème di am. man fooy man kay nu nga def am gel moom a jaaxal. ak nu nga dëree nii booy wax tey dama lay yërëm sax. loolu lañ ci neex ñoom. Hmm. xanaa xam nga ku kuy der dangay dangay dangay dangay actif yow. mais mënuloo nga démarrer sa lamine bi rek nga noppal. Eh, Zene jugal jugal nga dem xooli lekk bi gaaw gaaw gaaw gaaw balaa ñii di ñëw gaaw. Hmm. Hmm. demal demal demal. Idi yow bàyyi nga xel cinq fois mi ngi nii maa ngi tàngal lekk muy sedd te booy ñëwul. Eh, day tax mu gën a ñor. ñoom am nañu. woo woo naa booy booy booy faatu. nee mm. ma patron bi nee na ba si kanam mu soog a ñëw. waaw léegi moom patron bu ko waxee mu fanaan nag. dafa dafa dof ay ñëw. léegi woo ko nga ne ko sa yaay moo gaañ mu bu defee patron bàyyi ko mu ñëw. yaay kan sa yaay. pap nga xam ne kër gi nga xam ne kallu lañ reeree kallu kallu bi xoolal bëjëg bi boo ko defee si jàkk tag bi dana kooku su bëjëgu bàjjan bi baaxul ñu ngi xiif ba dee sonn lii cere caax kër gi yoo yoo xam ne sama ko jóg bëjëgu bàjjan da nga jot eh dama bëgg nga wax nànk laa la wax wala waxuma ak yow baay pap maa ngi ah, su bëgg ju bàjjan kooku loolu gën a gaaw yow lan la waaye xamatuma ci yow dara voilà bul xam ci man dara lii am daal am na ba pare lépp abaa lépp abaa la boobu ñun xam nga kañ lañ war a gis suñu watuwaay borom boobu xonq bu ngand boobu boobu futti kii borom boobu bu ngand ban borom futti bi borom futti bi waaw ça va comment tu vas man mooy wax ni yow j'ai ok je cherche Abba. yow koy koy làkk nii xanaa yow njaago nga. je te comprends même pas je cherche monsieur ma ñëw ah xam naa ne yow yow yow ñan la. Baye. kaay am am am am na benn ñan pour pour pour ñan bi. non ñan bi moom. on se ça va sëñ bi. ñëwati oui je suis là. doo ñu may ñu dund suñu vie ñëw nga def say enquête solo ñu fàttali lan la. li ma bëgg yow duma la ko wax. je ah. cherche Abba. mais yow lan moo tax yow ah. ñuy babi sa gimmi nga ah, la wala la loolu li ma wax leer na. Abba laay seet. Abba yooyu quoi. lii pour moom la. dama bëgg ku ko jox ku ko remettre. est-ce que doo wàcc ci ñu jëlal la ko monsieur. taamu ñooy jëli maître yi nii. Hmm? sëñ bi. Hmm? ku ma joxal lii abaa laa bëgg. ah euh, mais c'est moi ton père. désolé duma la ko mën a jox yow. ah toi tamit yow hmm, mais yow man daa am nga baal ma depuis keroog ay kii yow loo bokk Thierry Henry Thierry Henry musique sénégalais Thierry Henry c'est na ko fa de la de. xoolal keneen bu dee am na ko fi mu nekk bu ma ko mën a jox. ok c'est pas grave. Non, je viens avec Gogotte. Okay. Gogotte Viens pour moi. Il y a une personne qui donne à la chose. Mais elle ne me donne pas. Quand je venir, je donne. Qui, quelqu'un qui demande les mots bizarres, moi je ne comprends pas. Bonjour. Euh, va Ça va va bien. Ça va, bon, Je cherchais monsieur Abba. Abba, dafa dem liggéey. da ngeen dépassé délai yi quoi. kii ah nga baal ma ne ko abaa ci rajo luy liggéey ñu mooy ñooñu nga xam di wax kii diw faatu na fee faatu na fee faatu na fee faatu na léegi samay wax kaa kaa bàyyi doo bàyyi ki daaneel da nga koy wax li abaa di liggéey bala muy def ne maçon la est-ce que loolu la laaj ci tamit abaa la wax ah j'ai pas assez de temps pour di déglu kii vraiment abaa laa bëgg ah. nga joxal ma ko lii d'accord su wàccee laa ko jox ñun bi ñuy dal fii sa yére bi bu dee ci njeganaay la génnee nga fudd ko tuuti wis ci ndox passé ko dé sa bopp ngand bi nga naan wax na la dëgg xam dara ak sa yii tamit nga mel ni ku ñu ah, xew xew na ginnaaw dee. Hmm. nañu nañuy pare dem. Ah, muy eh, sa jooy yi moo fajul dara. waa déglu ba adam moom kayit yi mu la joxoon. kayit yi dama ko fàtte jox abaa mu ngi sama armoire. goxal xanaa xamoo ne abaa du yàlla abaa du suñu got moomuñu. yow eh. kon yaa génne. kon mu réew wax laa sorti dans maison. yaa ma génne. ba pare lan jooy ni yow. loolu jox ko Aba du <laughs> nag nga ree parce que seen lañ ñëw. dama da ngaa soxor de da yaay góor nag fi mu toll nii. ci yow nag rek xam nga man wéeru ma fenn. yaa fi sës jéemal ut fu ñu nekk tey moo ñu fi dese ak suba. ñu defar suñu bagage yaa ma gën a xam sam ñi samay nawle lañ. Bokar Bokar yow dinaa amoon sama fondement teg ko moom tegu ba defar. fondement am sama avenir nga nga arrêté loo ma ko. ay man eh bu ma sosal de kañ nga fi am ban avenir ak ban ban. danga ma ko wér yow tooguñu fi mm. ma am sama. yow bàyyi yow bàyyi mën nga meew de. Oh, yow fekkoo ma ci waañ bi fekkoo ma ci waañ bi ba teg samay bagages samay accessoires teg sama environnement teg loo xam ne tey mën naa ci dund tey ak eh, ëllëg. Eh, fan ban ban waañ. fii de def biir cat damay toog may ma gi cat cat baaxul nit booy door a door da ngay nëbbutu kay parce que moom daje bu baax investir ma mi ngi mi ngi mi ngi xaw a kii laa ci tuuti ndox mu bàyyi. fre fréquence bi mooy bañam. léegi daal conférence amatul ci kër geek ay taaj réunion léegi da ngay xooyal pat pour di ko taf xam naa affiche bi si couloir bi. Euh, Gogo ñu niroon naa fi office. ah may bañ di ko lu la jaral ay bañ di jaay. Eh, may ma Gogo il est ma defar sama avenir dama di ndaw bu ma yàqam sama àdduna. waaw naa defar sama encouragement bu mu ni cocc. Hmm? parce que man leen damaa jaaxal kër gi kër baa yu avaar loolu moom leer na ma. waaw léegi lu tax waa huissier ñoo fi nii dañuy génne. est-ce que jaayul kër waaw moo tax nag ma defar sama avenir boo jaay bi ni bii wut sama pàqu bopp bu dee dama koy sàkket sax dëkk ca ma dëkk ca. bàyyi góor dafa am lu moom mun nga jaay ay parfum wala ay leneen mais defar beñeel ani góor a defar beñeel. yee beñe bi yëfi góor la. fu mu nekk yëfi góor. wala yëpp Pikine fii nii école kaar. waaw waa jamono. waaw Salif beñe jaay ci buntu école Salif beñe amul Salif beñe. boo mënee sax nga defaale ko yambaanu tool teg ci wet bi mais wuyu ma bàyyi. def na nag ñu taaj abaa. Hmm. mais mu wax ñu lu leer dañuy xëy ñi rek gàtt suñu ay bagages dem. dégg ko man ki man zéré ma kenn de man maa ngi defar sama avenir maa ngi bañ pour jaay ko pour dem sama yoon. li ma la mën a yëgal daal moom. Hmm. abaa bu wàccee tey dinaa ko dinaa ko woode. Hmm. ñu toog ci salle bi mu wax ñu lu leer ndax fi mu ne nii génn jot na. Oh, si yow man de tëddatuma nelawatuma ba yàndoor ma ba pare nag yow bàyyi am fit nag weesuwul nga toog ba xooyal bay na nga nag si xooyal bi nii beñe bi nii dama bi mu jaam laa bi mu daan jaay mu lamb loolu laay bañ mu daan damay jënd kilo mhm. def ci ñi quatre nen de œuf de naat carbonate sept cent ah. levure huit cent oh. xorom cent francs ani suukar bi. suukar 1800. eh bàyyi sa beignet bi bu paree dana mel ni loolu noonu de. waaw baax na yàlla na jërë ak jàmm. laalal ci fëriñ bi xool ñama. ok baax na yow nga bàyyi. dañuy rek sa beignet bàyyi waxoon naa ko ko kon lu ma dugg yàqal ma ko. Aïcha xam nga ne heure bii guddi na fan lañ koy wëree. caat boo may gunge nga jug gunge ma boo ma boo ma bu ma sonal ak waa. Aïcha fii ñëpp tëdd nañ bàyyi moo nekk ci ginnaaw di wuy téléphone woo ko nga tenté chance Aïcha. maa ngi koy woo sànq ba léegi. essayé woo ko. Désolé, mais la personne que vous avez appelée est indisponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. <coughs> Aïcha bu jooy Aïcha boo defee nii man nan laay def Aïcha Aïcha noppil <coughs> bàyyi. Eh, dimbal li ma de da rëy wax nag. lu dul rek yàqal nga ma ko. li ma lay wax daal moom yow xam nga li ma lay wax jéem a la fexe ut fu ñuy dem. ñu gàddu suñu ay bagages ci sutura tëngati salaam gi nag bàyyi bàyyi sa jooy yi nga nekkee. Ah, li am ba des daal mooy li ma la wax rek samay mbokk ngi ci biir na nga wax naan ko dafa laa yàq. waxuma naan waxuma naan waxuma boo bàyyi woon ma jàpp sama benn bii wër ci garage yi di ko jaay. heure bi boo ma bàyyi woon tey su ma jaayee sama beñe dinaa am fondement au moins sax dinaa ko denc. sax au baay baay Aïcha mu ci saal bi di jooy baay. wala yow kay Aïssa bàyyi ci couloir bi di jooy demal. bàyyi duma la bàyyi mën a yor sa tànk ak sama tànk ba ci saal bi bàyyi. doo dem nga ne ko maa ngi jooy ma nga xam ne noppi. bàyyi teew ma ñu dem. kuy jooy du ndax kuy jooy demal. teew ma bàyyi. léegi faa ma ñëw. waaw doxal doxal. Aïcha Aïcha yee. yow dama la tudd kon nga toog fi di jooy Aïcha. lii yëpp Abba moo ñu ko teg ba pare jëm yoonam fay ay téléphone am man Abba nit la yéen waa noppil noppil yow tamit nag Aïcha jaaxle yow tamit. Euh. Aïcha eh eh nga dim kër jàmm. waaw saalu bay la eh, fii saalu bàjjanu gogoon la suñu bàjjan la. fii du suñu kër bàjjan. lan la. na eh, li ma gérer ko kii suñu bàjjan la du ma lay doxal su bàjjan du sama bàjjan. dama bëgg nga jël say matuwaay nga génn fii nii xam xamuñu lii fii dañoo am fii vasé ay fii jëppaak yi nii ay tubaab lañ on peut te choisir hein génn na yow mi yaay génn yow yow mi nga xam ma nga ñëw la ñoo um la yow mën nga ñoo bàyyi ngir yàlla yow lan la jugal fii yow yaay umaa yow lan la yow yow lan la xel teguma la ko abaa fi nekk ci xale yi mu ngi ci xale yi di paati yi moom eh, abaa ngi jàpp ay boyam yu neex <laughs> moom kaa mu dina la xamee nga naan ko bilaay bu ma leneen da ngay xaruma tax la ba asib ba dingaa nga naan ko bu ma leeneen da yow moom boo dee wi ci dëkk am yaa say doon ñetti xale lakki lakki lakki am faaya sama xol ci xale yi du lakki lakki lakki am faaya bu ma dem lakki lakki lakki te lakki moo lakki lakki lakki am faaya ah! maa ngi lay torturer nit de. Ah, ah. ci booy yi. <laughs> ci jëli booy yi. ci